nekk nañ ci biir wax nañ li ñuy wax ñëw nañ julli nañ loolu misaal la misaal la ndax julli bu ñu jullee ba pare ñaan xam naa fi lu bari it kon ñëpp ay mbokki neen ñoo fi ay mbokki ne euh, collectivité locale bi nag dafa am solo gis nga nit ñi bu ñu ne weeso dafa am lu am solo la nit ki ak say mbokk loolu dafa am solo wéeruwaay la li tax ma ñëw fii du hasard ñëw ne leen dañ leen di tàllal loxo ngeen ñaanal ñu yàlla ñaanal yàlla président Macky Sall li mu mébét si dëkk bi ba tey mu ne day fay dem c'est la première fois au Sénégal loolu musul am buy dem ba tànn nit fal Amadou Ba mooy continuité wu Macky Sall mais si changement parce que Amadou Ba dina xool ne Macky Sall defar na lii mais daf ko war a gën dëgëral gën ko pérenniser loolu moom mooy wax bi te loolu Bambilor nag li ñu am tey waaw mais macha allah mais depuis 1960 amuñu ko woon donc bu ñu ko pérenniser mais incha allahu rabi dëkk bi dina gën a dem kanam loolu moo tax man de dama leen di ñaan fépp foo xamante ne war nañ fa dem. ñuy ñaan collectivité lébu ku ñu fekk déen ku ñu fekk baneen gox ku ñu fekk si baneen dëkk ñu àndandoo dina néew ba sa kër tàggu la tàllal la loxo fu ñu mën a ànd ak yow ñu ànd fa ak yow si biir dëkk bi ndax man kan li may xam si politique mooy lan porte à seeti mbokk yi def ay visite de proximité dem waxtaan ak nit ñi mais du su tëgg ak fecc wala ay caravane loolu moom mooy idée bi doo daal loolu collectivité Lebu maa ngi leen di sant di leen gërëm fii su may mag rek ñoo fi ne su ndijaay su papa donc aw ma aw seen pay gannaaw Babacar c'est un conseil depuis depuis le début li mu wax ni xam nañ si lu bari yoo xamante ni sax soxlawul wax si caméra mais ku ñu mus di soutenir la ku bëgg Bambilor ku mus di soutenir Bambilor la ay pambàcc yi n'en parlons pas moom ay nit de l'ombre lañ saltige nag mooy li may faral di wax Ibrahima fay toujours avec son manteau loolu moom moom dong la ko nit ñi daan xamee tey bu ñu demee bay toog ñu naan njàmbur wax ngeen ma tey njàmbur ndey njàmbur ñu ne ndey ji réew ñu ne jaraaf yi et cetera mais macha allah loolu ce sont ni idéem la nit ki nañ ko dere il faut donner à César ce qui appartient à César idéem la moo ko taxawal. man nag kontaan naa bi ngeen ne bii mooy seen première ndaje kontaan naa si xëy na sama sollicité naa leen pour gistaan ak yéen waxtaan ak yéen. mu nekk seen premier daje mënuma lu dul def lu dul sant mais lii na wëy wëy bi mooy yàlla def na Edouard dinaa la yóbbante si suma mag suma mag dinaa la wax aussi benn affaire waa gorom xam nga tey nit ki day politique ñu ne ah nit ji dégg naa ko dinaa ko wax waaw kii di si kaw nit Jóob lay dal kii nii kii nële kii nële ñun élection présidentielle la ñu jëm Ndiagne Diop mooy coordonnateur APR man Ousseynou Gueye Macky sàll moo ma nommé décret à travers Ismaïla Madior damay jàpp ba sagar xeeñ pour affaire bi mën a dox ñu mën a gañe Ndiagne Diop man mii moo ma woo ba muy ñëw ma koy jàppale Ndiagne Diop ne ma li ma lay wax nii boobu sax ànduñu Ousseynou géey bu ma mës a gis saw tur si acte de session Ousseynou géey bu ma la mus a gis si suuf Ousseynou Gueye affaire promoteur yi di ñeneen ñi di nekkee keneen bu ma la si musa gis loolu dinaa la ko wax yow mi magam loolu maa ngi ko siy sant di si gërëm parce que bu ma sa nekkoon tey xëy na ñi am coow fii yëpp si affaire suuf ko dina ma si dégg mais moo ni ma bul ko laal ndax yow cadre nga te man dama war a protéger samay cadre gis nga nit nag bu fekkee nag nit da ngay man damay gërëm nit daal parce que loolu su ma joxuloon conseil ba en tant que grand frère ah non kon peut-être tey maa ngi si leneen donc loolu wax na ma ko xaw ma lu taxoon mu wax ko xëy na xëy na gisoon na lii wala gisoon na leneen ak leneen lu ñëwagul mais dama ko si sant di ko si gërëm doomu daal ensemble ñu ñëpp dañu war a gën a dëgëral loolu moo tax ma ni leen li fi xew yëpp muy problème ak lu mu mën a doon soxlawul ñuy listey problème dimbali leen ñu wal leen ñu fan mooy yoon bi naka lañuy ñuy solutionner affaire yi ñu solutionner loolu la nguur gi di xaara ah. nguur gi xaarul daan kan diw moo def lii wala kii moo juum nii wala kii moo juum na la soxla wu ñu loolu ñu ni neen la ay mbokk lañ mais nan leen xool problème yi fan la nekk yéen nag yéen ay mag ñi yéen a mën a régler yéen yéen ay lébu yi man ngeen si régler lu bari parce que xam ngeen fi lu bari loolu daal mooy tànk yi di leen ñaanaat yàlla ngeen jàppale ñu jàppale suñu candidat parce que c'est le meilleur candidat Macky Sall moo ko joxoñ te Macky Sall defar na Bambilor kon c'est le meilleur candidat loolu daal moo nekkoon kaddu yi maa ngi leen di sant di leen gërëm si ñaan yi vraiment loolu laa amoon si lu may wax maa ngi leen di sant di leen gërëm je vous remercie merci